te seenu pay fii la koy tàmbalee ak yéen incha allah su ngeen jógee fii da ngeen yëg ne liggéeyal ngeen sëriñ Faliilu ba mu wàcce leen nee loolu moom leer na ko nañ ñi kon buñ demee nan la xasaayu waat waajal am nay liggéey yu ñu jëm ca kanam su ñëwaatee ñu def ko ni liggéey rek ndax yoon murit moom ñax ak ñuq rek a fi nekk mooy yoon wi leneen amu fi bu sëriñ bi soxlaa rek nan daal di jóg buñ ne guddi na buñ ne naaj na ñu takk suñu laxasaay rek ndigg fu ndigal jible rek lépp lu mu nekkoon ñu daal koy bàyyi te xam ne ndigalu sëriñ bi mooy suñu njëriñ ñun àddina ak àllaaxira yàlla suñu fan lu faj aaju yëpp fay nañu fan wu gudd lool ak bu wér ak xéewal yu bari yaatu lool képp ku fi indaale sëriñ fan lu saafara képp ku fi indaale woon ak ñàkk yàlla la sëriñ fan lu jox am koom boo fi ñëwee ndax. ndax njàqare yi ci réew mi njàqare gi du ay indaale ne bu jógee rek jeex tàkk nan wér am xaalis bu bari am xéewal gudd fan barke Serigne Fane sama xol sedd na guy xam naa ne sëñ bi mu xolam sedd rek man maa raw man na xam man la joxoon jëwriñu liggéey bi ma woote woon su ma wootee yéen ñëpp ngeen wuyu si su ngeen digul woon kon danaa am yaraanga waaye nag alhamdulilah rabbil alamin am na ñaan naa ci turu sëriñ bi woo naa leen ci turu sëriñ bi ngeen ngeen wuy si ma ci sëriñ bi kon nag jërë ngeen jëf jërë jëf danaa leen beral nag sama ñaanu bopp boo xam ne sëñ bi moom day ñaan wàllu boppam rek ma ñaan sama xaalis bopp may tam ci bis bii laa ñaan ci dara jàmm aaj yëpp faju rek sëriñ Modou Abdoulaye Mbacke moom si asal mi ni sëriñ nee moom it koy sant bu baax di gërëm ak sëriñ ji mu banaan ndax ñoom itam wax dëgg yàlla saa bu ngeen ñëwee ci liggéey yi da ngeen doon xam ne ak taalibe yi da jàpp ne sëriñ bi ñu wàcce seen pas-pas ak seen laxasaay ne bu ñu jógee fii nag door a eh, delluwaat ca ceex nga doon ay seex waaye bu agsee ci tool yi daal ne kenn doon mën a xam ne ak taalibe yi waaye nee li wolof di wax naan li mbëtt yi bëgg moom la bar mii bëgg xam naa loolu rek la <laughs> kon nag jërë ngeen jëf fay tool la tàllal amin amin amiin amiin.